xaaral ma woo sama sam sama champion bi Kara waaw mbër Darlé yow waaw mbër man sax ma day ah jox ma Kara Niang jox ma Kara Niang man amul may wax ak yow yow mbër Darlé yow yow yow mbër Darlé six tampon Tafa Sarr Ndiak amul may wax ak ñoom ak Ali la waaw ah, jox ma ko. baax na léegi bu ñëwee ne ko woon naa ko Kara moom bu ne loolu loolu soo yónni ci nag man la voilà. ñoxo. Euh, doomu jàmb noo def. maa ngi fi euh, génn. non non génn ma. yow démb ma taxaw fi ñàlla kopp ndox may ma naan naan nga yaa ñëw gisatuma la. xam nga lu ma bëgg waxal ci kaw mu ndaw mu bàyyi ma tout tranquillement man bàyyi naa ko gis instant bi nii jàmm dellu dellusiwaat na fii nii. Ah. bëgguma fee indi benn ay ñu naan maman la. wax ko mu bàyyi ma tout tranquillement moo ngi dugg fu nekk di génn lu nekk mu def ko ndax man mii gis nga bis bu ma ko attaqué si biir kër gi di ngeen bëgg a coow li fay te sax du si mën dara bu boobaa. mais mais maman man kaw mu ndaw man Issa am na ça va vivre kaw mu ndaw ma xëti ko fee wax moom li may wax ak moom ne ko kaaw ba indi ay ci kër gi ndax kër gi léegi jàmm fa xew bàyyi wax ji yaa ngi dégg. bañ na ko sax ana yaayam dama ko yóbbu vacance dafa dir vacance laa ko yóbbu kon donc kër gi am na jàmm ma bëgg nag euh, maman man kaw li ma wax dégg na ko c'est moom am na ñàkk jom béy wala di def leneen baa mi wax leneen avec avec maam avec moom yow bu dara naa ko gérer yow sama doom nga ma ko juree kër gi dafa neex boo kenn yàq neexoon na tey tey day gën a neex parce que lii mooy kër bokk ndey bokk baay maa kaaw ñoo bokk ndey ak baay yaa kaaw mu ndox mi yéen bokk ndey ak baay yaa ngi dégg kon li fi xewoon seen biir ndey amoon na fi jeex na. waaye kaaw jàppee ma rakk. lu tax jàppee wu rakk. su ma ko jàppee woon du nekk fii nii naan damay màkkaroo ak ay góor. ka wàll kan la màkkaroo ay góor. moo ki nekk fii di génn ak moom lu neex. Ah. sama famille ñëpp yëg ko sama yaay yëg ko sama ah. papa yëg ko. Ah. ba ñuy waaj a marié ak moom. naka te yow la teg ak kaaw. mooy eh, ki ñëw fii. voilà xanaa dañ may baara yow. ki ñëw fii di di di baaraam kooku eh, kooku la. c'est que euh, gis na gis na far far dafa war a am irresponsable. far far waa dafa nekk dafa war a am ku nekk irresponsable. ku responsable. waaw hmm. waaw mooy mooy rek irresponsable moom benn la rek. saabul ak saabul bi rek boo ko boolee mooy irresponsable. waaw lépp saabul la jëm. kon donc man bëgg mooy cooleeg ŋaayoo beeg na fi dakk kaw moom sax dafa ñàkk a doon ah de ak koo bëggoon ak koo bëggul loolu yëpp naa ko gérer yaa ngi dégg koo bëgg la lay may koo bëggul doo ko may. yow bañ na ko sax mën nañ la bàyyi nga wax ak moom balaa may tàq ci kaw doo nag tàq ci kaw voilà problème rek laay bañaat ci kër gi problème du fi yow maa la ko ñaan bàyyi lépp mu sedd ndax yabu ma yaa ngi dégg du fi nekk naan di la macaroog di la spaghetti loolu yëpp lay lay dakkal dañ lay may ki bëgg nga sëy ak moom kër yow bañ ko sa papa man la la maa ngi lay maye maa ngi xool ki ma saf ak ki ma ki ma choisir ma may la ko kon tooga tooga sa toog jàpp sa tenki yu mooy loolu yaa ngi dégg. Hmm. voilà tey nag xam ne ma bëgg mooy bu bu bul segg kafe bul segg café ma àll café xam nga àll xam nga àll café. xamu ko. laa ilaaha illallaah yow nga mbir àll café. àll café indiw ma sa doom laa wax na ne mu bàyyi ma tout tranquillement foof laa yem nga naa ma àll café segg café yaa ngi may dégg. sa doom na ma bàyyi tout tranquillement foofu laa yam nag. waaw naw waaw noonu fekkee da ngaa muuma ne sànq. moom lan àll ka fekk seeg kafe sa baay ci lay nan de da am seeg gaay te sa baay amul seeg nga am àll kafe imbécile umba kas te sa baay amul seeg gaay amul seeg te sa boo xëyee tàngal ndox sa amul tërmuus sa nga am àll kafe àll kafe moo la gënal ah àll ngi nii man man man kañ ak na na àll alal ma xam ne daa jaay café man man man jaay leneen ñëpp ko xam si Sénégal ñëwee ba rompe pastel boo nee àll café ñu la ma nga nee kooku àll la gi ci la amee lu ne si la amee boo nee àll café ñu la ma nga nee si la amee kër àlla baax boo nee àll café ñu la ma ay ay maam ñu di ko dal bëy kër mais man nag lépp kaw mu ndaw la kooku kaaw mu ndaw moom dina xam ne jur wala man ne fii topp ay moment eh, boobaa mi xam ne lii boobaa xaaral rek man fu ma yemoon sax euh, sama papa yaa bi war naa ko ndox de papaya bii ñu ne nag sangu de yére bi moom faaw yërëm bii ah ñoo ah. eh, kii de olañ na soow. waaw ah, maa ngi rek yow yow lu ah, eh, léegi néeg bi rek. néeg bi bool ba dus ba rek. Hmm? léegi génn. Eh, dus boobu moom bu ko ci boole. ah yow bool ba dus ba rek. jaaxal nga hmm? ana kaaw. ah kaaw li ma xëy ba la gisuma ko. ça fait location. man sama kii bi laa wax sama ndox mi fu ñuy gëj naa naan de. lan yi sama yére bi. yow yow nit ñi naan ngay jox ay garab ñuy naan. ndox bi lu dëkk bi. yow yow da ngaa lekkul. man waaw euh, euh, kay. naanu. si. waaw yow yaa ngi lekk yaa ngi moom it moom it daa war a lekk di naan sangu. man waxuma loolu. comme que sa waay moom it moom it daa war a lekk. waxtaan bu spécialité bu mu war a waxtaan ak yow. ba jàmm la. du jàmm la du jàmm. jàmm du jàmm waaw. yow da ngaa mel ci man noo xamante ni ku la dagg may naaj. dëgg la jàmm wala ku ma dagg yaay naaj. dëgg la yaa ngi dégg. Mhm. kon du ma gis lu bon di jëm si yow ca du ma ko fànq. lu xew ba jàmm la. sa diggante kaaw. Ah, man moom su ma doon kaaw moom eh, neex lépp impact ndax ay temps. Mhm. nekkoon nañu fii. Mhm. di guerre. kaw damm na ma fi. doon fi ba may yuuxu. kaw yóbbu na ma si ruq ruq jinne yi. kaw def na lu ne. léegi nag loolu yëpp dañ na. Hmm. te maa kaaw ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. ma namp ma namp jox ko mu namp. yaa ngi dégg. Hmm. mais xuloo xuloo xuloo jeex na. léegi jubóo nañ ñu ngi si jàmm ak salaam dëgg it xam nga yow ni nga ko jàppee nii. bu fekkoon noonu la ko kaaw jàppee. mbir mi neex. man xam nga ne laa gën a bañ. affiche inje dawal kaboy. fii kan moo fii enje ak ay kaboy. ma kaaw du ñuy enje man du ma kaboy. bee tere bee xam nga boo ma dégloo di nga dégg. waaw base yi yaa ngi dégg yow da ngay sama nit mhm. te am na lu ma gis mu jëm ci yow te bëgguma mu ne këpp sa kaw waaw léegi bàyyi mu ñëw damaa ñëw fekk la yàkkaaw ngeen mel na mburoog soow mhm. di kafaka ree waaw yow xam naa la ci sa xol bu rafet dëgg la waaye wallaahi loolu sa musiba la lay fexe lu xëy ne bis bu dalee sa kaw lambay dina ñaaw ci yow de non non non neex arrête arrête tout sauf ça na ma na ma na na ma na ma na ma na ma tous pass yi ngay wax. que yii moom du ma ci du ma doon ci xam ma ci wax. non Makaw ay temps def nañu loolu si kër gi mais léegi moom jubóo nañu jubóo googu nag mooy affiche invité dawal kaboy kaw daf maa woo ci biir di wax ak man ci yow ci say mbir mais lan ma wax dara rafetu ci ndax kaaw bu taxawee ak man ne ma doom ji nga ko tudde muy. kaaw mu ndaw kaaw mu ndaw ah, ah lan ma ca wax yéeme na. waxal hmm? lan la wax. kaw war na maa woo ne ma kaaw mu ndaw keneen na ko jur dañ lay suturaal loolu war na ma koo wax ne ma yow juróo kaaw mu ndaw. après dañ la ko jiiñ noonu rek xool nañ ko fatax fataxee. Ah, ma nangu ko. nga ko ah, ok. bi ci des. sama calpe ba xam naa. nee na jamono yi jee ci ginnaaw. waaw waaw waaw da ngaa xuuxaanoon. wedd ko ne ko kaaw ñoo ko bàyyi loolu loolu loolu loolu noonu koo yëg ci moom ma xuuxaan nga fi te et puis da ngay sawlal daanaka saaga na la ndey sama kanam. man nag comme li ma lay wax ay ne yi di di di jéem a neexal ak nan la ay nañ jubóog nañ kacc kacc bu ko defee nga ñàkk fayda ah dugg dal sikkim di ko topp di àddi sa yooyu pal yooyu dalaa woo ci geer wuyuse ko ci guerre fii amul amul dara yàllaa fi ne yaa ngi dégg kaw ëpp liwu la dara boo ñàkkee fulla nag ba mu ci bàmmeel la la jëmee ah mukk ca dafa xemmem sa jabar yi da koo xemmem parce dégg naa ko moo ne moom yàgg a tooy la léegi après dina xool nu muy defee nu muy muy fexee bu ko defee mu jël ñaari yëpp. dëgg la dégg naa hmm? neex. man ku ma ko fekk ma ku ma ku ma jëw rek ah damaa bett bett ginnaaw. waaw ruus te jooy ñoom man maa war a jooy ngay jooy. yow kay li nga wax kee man la war a métti ma jooy nga mais li nga wax man naa ko faj à ma manière bul jooy. jërëjëf léegi yow jërëjëf sa yaram wàcc na hmm. li nga bëgg naa ko def maa kaw moom fii du garaawul dinaa ko gérer te incha allah doo ci feeñ baax na li ma lijjanti dinaa ko lijjanti yow doo ci feeñ jërëjëf jërëjëf doo ci jërëjëf jërëjëf mën ngaa dem mën ngaa dem dinaa ko gérer am problème yow ok wax nga lépp wax nga lépp juróom ma touche juróom ma dara lu ma la jox waaw li naa ko faj naa kaw nag seen yu ma yàq kaaw fii la ñu woo réunion famille fii fii ñu toog ëtt bi fii mu taxoon ni bal ma àq ma bal ko àq affaire bi jeex. loolu laa tàmmul te boobu léegi yaa ngi ma téye rek di wax rek nit boole nañu rek loolu dafa mën a tax nga taxawoon naa ma ay wax. xanaa déggoo li ma la wax fii bala nga fee bouger danga maa tontu ci li ma la wax. waaw mais bu déggoo li ma la wax nan laa lay yow mën ngaa def li nga def sama xol ba pare naan danga may romb mënta ne. waaw yow neexoo rek. <laughs> waaw mais kii moo neex. yow moom yaa neex. yow yaa neex yow. man kay sama neex ëpp na doole. waaw yow waaw ma xam ne dangaa neex man tamit dangaa neex. man lijjantiw ma sa neex. sama neex laa lijjanti te yow sama neex danga ma ciy topp. du ma la ci sa neex ci sama neex nga may topp. yow force danga naan ma waaw soog a jàll. du ma la wax waaw fenn. kon doo jàll. waaw yow. man virage bi rek laa taayal mais kon damay dem boo demee ma tax daw ta dàq ji la. yu xoola sàccee ñëpp dégg. waaye mu nee na bàyyi ma dàq ji waaye yow. waaw. wan insa nefas si. wane ba nefas si. bu bees. yaa nekk nii. maa nekk nii man la kay. Cés li sa problème. aw ma benn problème kii dama war a jàll. nekk nii ma jàll. loolu nekku si keroog bal nga tayal. may la topp ma suma gannaaw ndeke daw nga dem sa yoon. bu am ma jaar. Cass yow noo ma yabee. yabu ma la mais dama amul fu ma jaar man amul fu ma aw fu ma jaar fekk fa kenn fu ma jaar fekk fa kenn di teggi fii ba génnee fii. yaa ko teg sa bopp. mais Aba yow lan la. man ngay laaj lan la. faa ma laaj la lan la kii kan la. la moom na la bàyyi. na la bàyyi waaw. Ah, tey mu neex. Eh, da ngaa bëgg a xam man la kan. Ah, yow lan nga si kii. dëkk Sénégal mu dëkk Sénégal. Ah, ñu war a nobante lu neex. yow lan moo tee yam Gàmbi waaye nag yaa yooyu ndax góori Gàmbi kenn safu ci. just keep your mouth I'm not talking to you I don't have any business with you. Ah, yow yaa ma yëpp. waaw boo gisee kii toog fii di tontuwaat ne tontuwanteeg man. waaw yow yaa ko may man may ma ko ko de may ma ko ko de que damay jaale fii mu kàr ma. kaw ñëw di ma yàq si kaw mu neex soow. ñëw baay maa ngi dem kër kii baay damaa bëgg a dem kër kër kii waay kër ah, ah maa bëgg Abdou Diagne booy Abdou Diagne dëgg naa ñëw na quoi xam nga waaw ñëw na moom bu ñëwee rek bu ñëwee rek madame da koy lakkasi kër gii mais man damay xam ru xam moom fa laa bëgg a dem rek ñu waxtaan tuuti tey ñëw dégg baay moom fa laa bëgg a ñoo ko baay ah lan la lu la metti lan eh eh kii lan lay lekk ni eh, dafa am yow looy looy naan ñoo ko baax kaw ye ah, kaw li ma dëmm rey la jaayam yow kaw yow ku bon nga yow nit ku bon nga fii ma toog woo ma man Fatou Kiné mami Serigne Goudiaby Diouf eh, eh, ñëpp nga woo fi ñu toog ñëpp ñun waa nga ne ma ñoxo bàyyi waa bal maax bal na laax waa ñëpp ñu juboo waa fakki na juboo ak man waa yow nga juboo sama jabar waa yow kaw nga tey amul def tey loolu toog di yàq yow nga ne man kaw jur ma ko mu ndaw dama koo dem créer te indi ko ci kër gi kër gi yow yaa ko yor man dama ci def dama ci mais kaw yow bëgg la woon kaw ma bëgg la def sama grand frère kaw may yàq wut mbir yi naa ma ñoxo bàyyi lii ñoxo bàyyi la pour lan kaaw yow yow kaw lu ma la def léegi nag da ngaa maa yow ñu nekk ci di gas sa gas sa nañ ci demaat. man demay laaj. ki yow la. Euh, non non sama sama euh, maram la du man. yow ñoo ko am ay rab wala da am ay ndikaan wala da ngay lakkatu di gulugul. da ngay lakkatu di gulugul waaw naa gulugul gulugul te gën ko def vraiment fou sa ça naka yow si yow yow yow naka la doo dara yow nga woo ma fii amuloo tey nag dafa ne dama yàq waaye man mënoo. eh xoolal feem nag rek. waaye feeb dara kaw feeb dara. feeb waa kii lu ko dal. li nga gis. li nga gis lu xew. loo loo ma waxal. lan laa la waxal man dama yàqal dama nga yàq. lan laa la waxal man yàquwuma ah. doo ma yàq man yàquwuma. waaw lan laa la waxal man. Ah, waaw nga ne nga ne man. nga ne man kër gi man doo doo fi def. ku ko wax. loolu loolu jërul liggéey. ah déedéet loolu jërul wax. ay seytaane toogal. ay seytaane yow yaa seytaane yow la. ay seytaane toogal. yow yaa seytaane bi yow yow la. ay seytaane fu mu jóge waaye. ci yow la jógee ci yow. yow nga yow. Mm, yow daa am loo wax. yow nga seytaane yow. lépp ak yow. yow waaye yow ñoo ko bàyyi danaa gulu gulu wala. naa gulu gulu sa kaw loolu sama néew si mais yow kaw yow ma jiw ma lii ah nga ma yàq sama de. yow man man. man yow woote bi fii. man ma woote jàmm. waaw mais yow. waaw waaw defal nanka nag. xam nga dangaa wax ma déglu la. waaw danga may déglu nag. waxal. xam nga yow yaa woote jàmm fi. man maa woote jàmm. waaw maa def drapeau la paix. waaw hmm? ma fekk la woo say defal nanka rek. waaw maa woo jabar. waaw maa woo say sama jabar. waaw maa woo ñoom yëpp kër gi l'ensemble de la maison. waaw wax waxtaan. du man maa créé. yaa Hmm? waaw pour indi jàmm léegi man lan lay def loolu mu neex ma boo pare may jaar si suuf naan maa ngi taxaw di la waxal lu yàq sa der wala may taxaw di wax lu la wax loo xam ne yow kaamu ndaw soo ko jurul xanaa kuti bi juru ko wala mbangu bi juru ko xanaa yow loolu boo ko déggee sak si sa xel war nga xam. yow ma bi bi mu sëy see bi nga nga ko téye. ak bu mu ëmbee ñu dem yooyu yëpp man fii la may fekke ah nga yóbbu maternité tout ça fii la ma fekk kon man su ma waxee loolu du wax boo kii beneen bu may waxaat mooy man ma yàkka sa der xam naa ne sama der laa yàkka da nga der yow amoo der ah, ñoo ko bàyyi nag taxawal yow amoo ku la wax lii nag yow nag yow nag dafa mel ni nag dañu la réalisiliation yow amoo der kaw yow dañu changé sa bopp yow amoo der amoo waaye yow ku la wax lii loolu loolu do fekkee yow dafay waaw léegi doo ma wax ku la ko yow maa moom billahi ka maa fii maa ngi maa yow fii bon nga yow yow doo sama tus yow maa yow fii kër gi naa ko yëngu doo dara go si tamit waaye laaju ma la waaye ñoo ko bàyyi ñoo ko bàyyi ceeb maa ngi moom léegi léegi ñu lekk ceeb maa ngi moom léegi léegi ñuy waxtaan te ba si guddi ñuy waxtaan une heure deux heures trois heures am na doomu xaraam bu jaar sama diggante ak moom ñoo baay ñoo baay ñoo baay yaa dégg dama war a dem ñu xëy mu kal ma yow ngay góor kii muy jigéen mu kal waaw mais nu may demee na ma awee nii mu yuxoo ma ah. ah, si yuxoo li may waa kii du cas ma lakk bam sotti wii lii man maay ndayu lekkuma ba regg keneen du lekk yéen yëpp da ngeen di xaar waxi dof wéeru la bokk. kooku kii tamit yow da ngay xaar soo amee question dama koy laaj directement bul poser question indirecte dama ne. yow moom man man wax yow yaay xaar yow tànk regguma kenn du lekk yow de un da ngay dem toog xaar li problème mu sénégalais la da nga ciy maandu deuxièmement yow nag war nga noppi de ah. mel ni man nga dem jël loo xamante ni boo ko yëkkati sa yaxu ndigg di damm ah. yow cas <laughs> man kay maa ma man kay maa am yow rek dina tëgg a raas waaw yéen la raas na jot na yow. Eh. yow defal nii ngay mel ni big feutre nii kii fi mu jógee. <laughs> damaa bëgg nga régler. defal nii ngay mel ni big feutre amoo leen gis nga yow yow laay waxal. Eh. waaw yow lan ngay def ak ñii. xam naa moom moo am classe gémmiñu gi mel ne gagu ginaar. waaw mais yéen man mais yow mais yéen lii nga dese yéen xale yu ndaw lii ngeen dese ay xulloo xastante. man nag taluma loolu. waaw am classe. yaa am classe wala lu may wax waxal ca bu man la taawal fii yow cas hmm? taawal fii cas eh, affaire bi yëpp xaaral li ma bëgg leen eh, la cas nga topp ma man li yëpp nga ñëwul ma li nga ñëwul da ngay tànn yaa yéen waaw amul sa cas man ngay topp ñu dem a waaw xaaral ma waccal kii eh, amul tànn sa cas man ngay topp li nga ko jàppee alal nag moo tax moomu ko parce que cas amul tànn sa cas man ngay topp de ba nga eh. nekk naan maa ko moom yow da ngay déglu. ci a leen fi dem. Eh. yooyu rombal yi ah, ah. eh. yow. yow soxna si agressé ah, yi yow soxna si agressé yi xam na ma de. yooyu rombal lu mu doon ni yow. yow soxna si agressé yi. oui maa lay yóbbu sama alal yow sama yow waaw lekk leen ma waaye lekk leen nag. naa naa waaye lekk leen. yow man ngay topp yow. waaye kii. waaw léegi yéen laa ma ne